dis la paix de proximité. toujours dama koy présenté waaye Nogay rek laay wax kon ajaratu dégg ab yi doon may ma ma tuut jéggalu kii déggeen béy la tudd waaye man xam nga déggeen ak Nogay danoo jege moo tax non may juum rek wala ajaratu déggeen béy mu ngi noonu Nogay parce que jërëjëf yaay bu dem Mira todo secrétaire à l'Assemblée nationale ñu ne la woon na ñu ne la woon toog. voilà. waaye dafa tàgg. waaw. Mahamad Hassane. su anan la. Bambor nga pété. maa ngi nii maa ngi nii si tool yi. voilà. voilà. léegi maa ngi dégg. teew ak bi nga xam ne ci suba ak léegi bi ñu fi yendoo gisee ak nañu ak ñoom saafante ñoom di nuyu notabilité yépp yi nga xam ne ñu ci commune Guinaw Rail Sud may nuyu aussi l'honorable député deuxième questeur à l'Assemblée nationale waaye di présidente des femmes de Benno Bokk Yaakaar et de l'APR madame Awa Niang xawe naa maa nuyu bu baax yow ak délégation bi nga àndal su ma la nuyu naa jigéen ñi nga xam ne ñëpp dañoo jóge ci département bi ñëw teewee tey jii bisu Baba Fall bi mais nuyu aussi la coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne les leaders de parti ñi nekk ci biir département bi ñoom ñoo jóg ànd ak man ñu ñëw teewee. le meeting d'investiture de notre candidat à la commune, dans la commune de, de Guinaoura Sud, M. Baba Fall. leader de yëpp maa ngi leen di nuyu léegi léegi def naa ne lim nañ parce que ma ngi bëgg a guddi bëgguma ci jaaraat may jeexale nuyoo bi les journalistes qui nous ont accompagnés aujourd'hui de les remercier ci seen liggéey bu rafet bi ñuy liggéey ci département bi voyez aussi mais nous en a particulièrement qui nga a Nous tey ñun ñu c'est notre candidat le candidat du président de la République son excellence M. Macky Sall le candidat de la coalition Benno Bokk Yakar. ah oui mooy candidat wu président Macky Sall nag damaa bëgg wax ginnaaw la yëpp xam loolu le candidat du président am Philippe Baye Macky Sall mii mooy président moo ko yor am na jiitalu am na yërmande alors jiitalu ko am na ko le lay jàmm nuyu ki nga xam ne mooy candidat au président la république di suñu candidat ñun ñëpp muy monsieur Baba Fall ma bëgg wax ne biir ginnaaw raay nag dafa am loo xam ne dafay jot ginnaaw raay sud fukki at ak juróom-ñeent 19 ans vous avez un maire 19 ans. gay mais man li ma leen mëna wax xam ngeen mooy lan fukki at ak juróom-ñeent 19 ans wala bii infrastructure ak ba mu munti doon bu weesoo li ma dégg sànq Baba Fall wax ko muy benn jardin ak benn mbaar damaa bëgg ngeen xool biir ginnaaw raay sud si fukki at ak juróom-ñeent ngeen wax ñu lan la fi monsieur le maire sortant def fii ci biir Guinaw Rail mais dafa am loo xam ne nag war a mën a yomb boo nekkee maire même bu fekkee yàlla dafa dogal yow amoo budget wala amoo ay recette yu war a mën a tax li nga bëgg def yëpp nga def ko waaye na nga am ay pexe na nga am mën a ànd ak ñi nga xam ne mën nañ la cee jàppale nga dem wuti ko indil ko sa askan waaye bu fekkee ne da nga ñëw élection 2014. yow ak Abdoulaye Timbo ngeen ni jonganté pour nak mer la ville de pekin Wally yekati la ba ci kaw dóor ba ci souf yekati la ba ci kaw dóor ba ci souf mais sëñ mi loolu waroo tax ngay sisu ba tax lo war dem ci mom sax jëlee ko indi ko waa dina waaye dina doo ko def lo nak du conscience patriotique du esprit citoyen dama bëgg ngay xol xam dafa am importance ngeen xoolaat choix bi ngeen di def tey ñu nga jëm ci élection dans quinze jours il est important pour transformer le visage de la commune de Guinaw Sud de s'allier avec des gens qui ont de l'initiative mais des gens aussi qui ont de l'entre-gens su ma nee entre-gens mooy ku mën a am ay pexe ku mën a ànd ak loo xamante ne ni yow attan na ko wala mën na ko nga dem wuti ko te nag fii tey jii yàlla dafa dogal Macky Sall moom moo fiy dogal ah oui. ànd ak parce que bu ñu loolu juróomi at yi weesu juróom-ñaari at yi weesu dara malheureusement ñoom depuis malheureusement depuis que dafa tabax benn collège de quatorze classes boo xam ne inauguré nañ ko barki démb yàgg dara est-ce que xam nga fii ci ginnaaw raay noor mairie de la ville de Pikine mën na fay tabax benn maison de la femme boo xam ne travaux yi avancé na trop est-ce que xam nga ni fii ci commune bi Pikine Ouest le complexe Léopold Sédar Senghor bâtiment boobu ngeen fee gis ñu koy tabax mairie de la ville de Pikine moo koy tabax muy bibliothèque départementale parce que xam ngeen ni fii ci ginnaaw ci Pikine Est mu nga fee tabax maison de la jeunesse ministre de la jeunesse moom Néné Fatoumata Tall moo ñëwoon pose première pierre bi bâtiment boobu mu ngi koy yëkkati pour les jeunes du département de Pikine te loolu commune na fi ñun ñëpp mooy commune yi nga xam ne ñoom ñoo wër seen commune bi Pikine Ouest la Pikine Est la ginnaaw Waar la sur mer la commune yi ma wax nii yëpp mairie de Lagune de Pikine mën a fay tabax loo xamante ne maire commune ba moo ñëw laaj ko la maire de Lagune ñu ñu ànd ci di ko defal waaye yéen seen commune bi am na lan na lan na loo xam ne seen maire jot na dem wuti ko ñu wax ko ñu ko ñu jàppale ko ci defal ko loolu nag bu amee il faut nañ bàyyi xel ci loolu Thank you. Je vous appelle donc à faire une prise de conscience citoyenne et patriotique pour votre localité et faire le bon choix au soir du 24 janvier 2022. Bon choix de notre bonne C'est le choix qui est le choix du président de la coalition de qui a déjà gagné mobilisation a changé de main Gouvernement bi jiitu maire monsieur Baba Fall. bu ñu waree maye fekk le 23 janvier fekk le bon choix et choisissez le bon candidat. coalition Benno Bokk Yaakaar monsieur Bara Fall yal nañu yàlla may fexe ñu taw ko région bi ñu ngi concrétiser ko dans les jours mais incha allah rabbi Bara mes félicitations et mes encouragements yal na la yàlla jàppale ba taw bi yëpp yegg si ñu fal la nga nekk le futur maire de Guinaw Rail merci beaucoup waa Guinaw Rail gërëm naa leen sant naa leen jërë ngeen jëf تبتدي لا تهدف رقم ليش